أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen mbokk jullit yi ci sunu dars siira xam ngeen ne dimanche passé ñoo ngi tolloon ci xadiisu abi sufiyaan ci waxtaan woowu nga xam ne buur bi woowoon na ko abi sufiyaan di ko laaj ci mbiru yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam tolloon nañ fi ko buur bi doon laajee hal kaana min abaihi malik ndax ci ay baayam ak ay maamam am na ku ci musa falu buur abu sufyaan ne ko fa qultu laa ma ni ko déedéet fa law kaana min abaihi malik la qultu rajulun yatlubu mulka abi su doon dafa am kenn ci ay baayam ku musa nekk buur kon dinaa ne waa jii daal daa ñëwaat bëgg a récupérer bëgg a nangu nguurug baayam nguurug ay maamam waaye nag comme nag ci ay baayam ak maamam amul ku musa nekk buur kon day ñëwul pour nangu nguurug maamam mu ne wa saaltuka maa ngi lay laaj ndax a asrafi nnaas yattabiunahu ndax ñi ko topp moom waa ji di woote naan yonante la ñi ko topp ndax ci ñi gën a tedd ci nit ñi ñoo ko topp wala am duafaahum wala ñi gën a yées ci nit ñi ñi amul doole sang yee ko topp patron yee ko topp wala ñi amul dara fa qultu duafaahum abu sufyaan nee na ba ma buur bi laajee ana ñan ñoo topp waa ji ma ne ko ñi néew doole noonu la ko buur bi tontoone ko wahum atbaau rusul ñooñu day ñoo masoon topp yonent ya bépp yonent bu yàlla mas a yónni ci kaw suuf njëkk njëkk wuy si njëkk koo topp mooy duafaa unnaas mooy ñi gën a néew doole ñoo ko topp mu ne wasaaltuka maa ngi lay laaj ba tey al yaziduuna am yanqusuun ñoom dañuy yokk bis bu nekk ñoom ñi koy wuyu si dañuy yokk wala dañuy wàññeeku woote gi muy woote par bis par bëccëg ña koy wuyu si dañoo yokk wala dañoo wàññeeku ne fa qultu bal yazidun ne ko ah neexul ba teexul daal wax dëgg dañuy yokk dañuy yokk de ah kaysar daal di koy tontu moom it ne ko wa zalika al iman xata yatim ngëm yàlla de noonu la musa mel ngëm yàlla day musuñu ko woote ci mpinc cib dëkk cib gox ci réew lu dul ña koy wuyu dañuy yokk waaye duñu wàññeeku ne ko kazalika al iman hatta yatimma noon de la ngëm di def mu ne ko wa saaltuka hal yartaddu ahadun minhum ndax kenn ci ñoom ci ñi koy wuy si am na ci ñoo xam ne ñëw nañu ba ñu neex leen ñu génn delluwaat murtad dellu ca la ñu nekkoon nekk ay yiifir mu ne ko déedéet loolu de musulaam qaysar ne ko wa zalik al iman xiina tuxaalitu bashashatahu qulub ngëm de noonu lay def ngëm moom saa yu duggee ci ay xol ba jaxasoo xol ba ba leer gi jolli ci biir xol bi aa ngëm googu day kenn mënatul a fexe seeni borom di deltuwaat ginnaaw di delluwaat ci bokkaale wala ci réer wala di delluwaat ci lëndëm ngëm moom saa yu jollee ci xol rekk day yokk waaye du wàññeeku mukk ngëm loolu lay def guddeeg bëccëg loolu mooy mbiru ngëm mooy saa yu duggee ci xol rekk boroom xol ba yëg ne ngëm dugg na ca xolam mu ne ko ba tey de maa ngi laaj ndax mës ngeen a xeex ak moom hal qaataltumuuhu ndax mës ngeen xeex ak moom moom waa jooju ndax mës ngeen xeex ak moom mu ne ko waaw waaw mës nanoo xeex de mu ne ko wa inna alxarba baynakum wa baynahu sijaal wa kazalika arrusul xiina yakunu lahum alaqiba summa yakunu lahum alaqiba mu ne ko xeex nañoo ak moom de gañe nañu ñu gañe ko am na bés ba mu xëy dumanu waaye ñun tamit fayu nan de mu ne ko waaw mbir mi de noonu la waaye nag mujjantal ga lépp ñi gëm yàlla ñooy am ndam mën ngeen a xeex ak ku gëm yàlla mën ngeen ko gañe sax mën ngeen ko duma waaye mbir mi li muy yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ki gëm yàlla mooy am ndam mu daal di koy laajaat beneen laaj waaw moom lan la leen di digal kii ñëw naan yonant la moom lan lay digle mu ne ko ah dégg naa day annahu yaamuru bi salaa day digle julli wa sidq day digle dëggu wal ifaaf day déglu fegu wal wafaau bil ahd day déglu respecté rendez-vous respecté dig wa adaayil amaana dégg naa day wax nit ñi nañu jokk kóllëre mbokk yi gis ngeen buur baa ngi laaj abu sufyaan a ngi tontu laaj bu ko buur bi laaj rek moom Abu Sufyaan tontu na tontu bi daal di koy leeral ba mu leer nañ mu ne ko waaw maa ngi lay laaj ba tey hal yaxdir ndax mas na leen a wor mu ne ko mukk ci àdduna mu ne ko mukk ci àdduna koo kay musta wor mu ne ko wa kadalika ar rusul mu ne ko yonent yi tamit de noonu lañu mës a mel duñu mës a wor ndax yonent jikkoom wor du ci bokk mu ne fa alimtu annahu nabi laaj yi daan nay jeex buur bi laaj na ko moom Abu Sufyaan tontu na ba tontu yi jeex buur bi daan ne fa alimtu annahu nabi mu leer ma wóor ma ne waa ji kat ab yonant la dëgg dëgg yàlla ko yónni mu ne waqad alimtu annahu mabuus mu leer ma ne kii kat ndaw la lu yàlla yónni walam azunnu annahu fiikum mu ne ko amatuma sikki sàkk dengi dengeetuma ne moom bokk na ci yéen wala bokk ci mu ne ko wa in kaana ma kallamtani bihi xaq waay waay bu fekkente ne lii nga wax ak man dëgg la dinaa ko jox sama tëstani tànk yi mooy danaa jébbalu ci moom de danaa ko wuy ji de dinaa ko gëm ndax leer na ma léegi nàññi ne ab yonent la yàlla ko yónni moom Abu Sufyaan nee na bi buur bi waxee lii joxe ndigal ne nañ ñu génne nee na boobu laa dégg ay baat di nguni nguni ci suuf daa di yëkkatiku ci kaw baat yi daa di yëkkatiku waaye dégguma làkk yu lu ñuy wax fala adri ma qaalu mu ne xawma ñoom lu ñuy wax waaye comme dégguma làkk bi waaye dégg naa ñi wër buur bi kàddu yu bëri na coow li yëngu na mu ne wa amara bina fa uxrij na buur bi daal joxe ndigal daal ne nañu génne ñun ñi nga xam ne dañ noo woowoon doon ñu laaj lan lañu xam ci mbiru yonent bi ana kan mooy ki ko gën a jege ci mbooloo mi mu ne comme man la woon nag ma jege si buur bi laaj ma laaj yi ba ma yem ak moom fa nu yem buur bi daal di joxe ndigal nañ ñu libéré daan ñu bàyyi ñu dem abu sufyaan mooy nettali ba tey mu ne fa lamma xaraja abu sufyaan abu sufyaan nee na ba ma génne mu ne wax naa samay àndandoo ah sunu mbiru mbokk mi moom nar na yéeme de ndax dem na ba buuru Qaysar ragal ko kon sunu mbiru mbokk mi nar na doy waar ci ay waxtu yu ñëw ci kanam ay fanaki bés ay jamono kon mbokk yi lettre Abu Sufyaan a ngi nii mu leeralal ko buur bi ba mu leer muy waxtaanu Abu Sufyaan ci Qaysar laaj yim ko laaj moom buur bi laaj ko Abu Sufyaan tontu ci mbiru yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci ndax ay baayam kan moo ci nekkoon buur mu ne ko kenn ndax ñi tedd ci nit ñi ñoo ko topp wala ñi amul doole ñi néew doole mu ne ko ñu néew doole kon looy dégg mooy day néew yàlla da tànn ci buur yi di ci def ay yonent luy néew la waaye saa yu ab yonent tàmbalee di woote ñi koy njëkk a wuy si mooy ñi néew doole waaye di nga dégg ci laaju buur bi mooy mbooloo yonent yi ñi wuyu dañuy yokk waaye duñ wàññeeku gis ngeen loolu ci lislaam day yokk rek waaye du wàññeeku ak xeex yeeg métital yeeg bunduxataal yi li muy bëri bëri day yokk rek du wàññeeku mukk naka noonu mu ne ko ndax ña cay dugg dañuy génn rek ndax ku dugg génn mu ne ko déedéet moom buur bi ci boppam moo tontu ne ngëm bu leeree ci xol xel bu xol moom bu xol boobu dootul déngi déngi ngëm saa yi duggee wala mu leer ki gëm boroom ngëm la dootu ci am ay déngi déngi ak ay natable waaye ba tey buur baa ngi laaj ne ko ndax mas ngeen a xeex mu ne ko mas nanoo xeex loolu ñun luñ ciy dégg mooy mbir mi la muy jóge ci yàlla ak la muy nekk yonent yëpp xoolal xeex na kon ki ci nekk war na kaa suuraale bés dana ñëw ñu xeex loo ko wala mu xeex ndax mbir mi daf koy laaj nekku rek looy taxaw di wax wala nga koy jàngale rek wala wala waaye bis dana ñëw tuurante deret am la koy waral mooy ña ngay woo ñooy bëgg a tuur sa deret su boobaa yow sa diine sant na la nga défendre sa bopp moo tax mu ne ko ndax mës ngeen a xeex ak moom mu ne ko waaw xeex na noog moom de bokk na ci lim ko laaj tamit moom mi ñëw lan la indi ndeke yonent day am lu mu yore day yor programme bu mu jëme ci nit ñi la ca jiitu mooy julli nit ñi xam ne dañoo war a julli fu nu toll sàmm seeni waxtu danoo war a dëggu lu nu wax ci moom muy dëgg danoo war a fegu danoo war a respecter rendez-vous waaye dañoo war a am kóllëre gis nga mu ne ko yii ay melokaan la ay jikko la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam indil nit ñi waaye mu ne ko ndax mës na leen a wor mu ne ko mukk mësunoo wor xoolal liñ koy bañ yépp ak li ñuy xeex ak moom ak li ñuy xëccoo yépp yonent bi musul leen a wor ndax jikkoy lislaam wor bokk ci gis nga ba laaj yi jeexee ki doon laaj ñu koy tontu moom ci boppam moo dëggal ne fa alimtu annahu nabi mu leer ma naññ naññ ne waa ji kat ab yonant la gis nga ndeke kon dëgg moom bu jibee rek dara dootu ci war lu dul nit ki mu nangu saa yu nit déggee dëgg naru ko nangu wala waru ko nangu rek dafa nara alku dëgg dëggu yàlla alxaqu min rabbik dëgg yàllaa ko moom fala takunanna min al mumtarin bul bokk ci ñiy dengi dengi bu ñu déggee dëgg kon mbokk jullit yi dëggu yàlla gaangoog yal na nu yàlla may ñu gis dëgg yàlla wërsëgal ñu xam ne lii mooy dëgg yàlla wërsëgal ñu ñu jàpp dëgg gi yal na nu yàlla may ñu xam neen mu wërsëgal ñu ñu xam ne lii neen la mu wërsëgal ñu ñu soriku kon loolu mooy sunu darsu tey incha allah ci kàttanu borom bi lettre abu sufyaan bi waxtaanu abu sufyaan ak buur bi qaysar lañ doon eggali incha allah dimanche bii di ñëw ñoo ngi jël kitaabu amiru busra lettre bi yonent bi bindoon buuru busra moom la ñuy jël incha allah ci kàttanu yàlla salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu